jàngat bi ma ànd ceeg sama série sama jigéen sama xarit sama lépp soxna Fatima maa ngi lay nuyu. Baye Djily maa ngi lay ziar di baal ñëpp àq di baal ñëpp àq. ah di nuyu nag ñi nga xam te ñoom ñuy suivre sur Wassare Lamb kon ni ma koy waxee rek à chaque fois ndax nee naa leen ñoom ñii ñoom ñooy roi ñoom ñooy reen kon ñoom lañu war a baal bu baax a baax ndax chaque jour amaan na wax loo xam te ni waxul mm-hmm. ndax ñu ay xale lañ dañuy jàng rek mm-hmm. mais ñi ngi accepté suñuy erreur rien que pour jàppale ñu wax dëgg yàlla même commentateur yi ah, ñu ngi leen di bigi bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. parce que yéen seen fay ndax nee naa lépp loo leen bind rek daf ñuy encouragé kon donc yéen cantak ngërëm leen kon nañ ñu ko waxee rek xam nga ñoom ñoom ñoom ñooy lépp il faut que tamit ñu nuyu leen baalu leen àq parce que ñoom dañuy sonn si ñun. Hmm. Ah, di baalu nag àq ñi nga xamante ni kon ni ñu koy waxee rek ñoom dañuy séqal li nga xamante ne moom mooy liggéey bi. Hmm. ñoom ñëpp ñu leen di baalu àq mais nag euh, bàyyi ji li dafa am loo xamante ni benn tiis boo xamante ni dafa dal suñu kaw mu nekk koo xamante ni mën nañoo wax ni euh, suñu xarit la. Hmm. nekk suñu mbër ba pare ñu bokk ak moom li nga xamante ni moom mooy liggéeyukaay bi. muy Papa Yade. Ah, di ko jaale ñi nga xam te ne ñoom ñooy waa axul làmb yépp di ko mm. jaale suñu bopp di la ko jaale parce que mm. nekk na koo xamante ni moom suñu lépp la ndax ah, xam nga mbër dina toll foo xamante ni sax amaana buñ la woowee ngay def yeneen affaire mais à chaque fois buñ ko invité kontaan buñ ko tàllalee micro da ciy kontaan mu nekk suñu lépp ndax chaque jour dafa ma doon wax ni yow sama sœur nga ndax dañ lay jàppale dañ laa ñeewantal mm-hmm. mu nekk koo xamante ni daal ku baax la ndax am na loolu mbébét yoo xamante ni ñu ko doon def maak moom ba mu invité ma sax lakk jël yàlla mm. xam na ma ko. billaahi nam soo ñëwee ñu def lakk jën dem géej ga. Mm. à chaque fois loolu la doon wax mais nag yàlla ak ay ndogalam. Mm. kenn xamul ko jaaralaat ñëpp ñëpp. ku mm. ne rek ndax su ma ciy wax rek na fu ma àgg. bàyyi di acca. Ah, waaw kon ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax am na solo ñu koy jaale képp koo xamante ni doomu tëngeeñ nga Papa Yade numéro 2 soxna Fatima tey ma bëggoon ñu waxtaan ci làmb li ma bëgg nag ñu waxtaanee ko li njëkk mooy écurie Ndakaaru depuis ba fa Yaxya Jóob Yékini jógee ba tey bàyyi bëre euh, absence su Yékini junior ak Malick ñan ba tey dañoo gis écurie Ndakaaru defuñu benn performance ci kaw parce que ñoom ñu ngi am euh, saison bi euh, mën naa ne saison bi cinq comme cinq cinq mois la waaye écurie Ndakaaru am na ci lii di quinze combats la ci def am ci huit victoires sept défaites mhm. léegi lan nga gisee loolu. bilan boobu noonu jili kon ni ma koy waxee rek à chaque fois nee naa leen ñun ñu ñuy seetaan. Mm. ñun ñoo ñu gën a xam foofu si li ñuy wax mais amaana nag euh, ñun ñoo nekk ci kanam. Mm-hmm. di wax rek euh, ñun am na loo xamante ni fekke wuñ ko mais tamit kon li ñuy wax rek ñu gëstu. Mm. bilan écurie Ndakaaru boo xoolee écurie Ndakaaru bu njëkk ba ak bi am na différence. Mm-hmm. ndax euh, Yékini nekk na koo xamante ni nee naa leen nit mënatu koo dabaatal. mu mhm. def ci làmb kenn mënu koo def ci làmb mhm. euh, mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla drapeau écurie Ndakaaru da ko doon yóbbu mhm. ndax tey boo nee Yékini rek day ëmb écurie Ndakaaru mu ñëw encadré ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay rakkam ku ci mel ni Malick Niang ki nga xamante ni euh, moom mooy euh, Yékini Junior nga gis ni Malick Niang sax ak Yékini Junior ba ñu génnee écurie Ndakaaru mën nañu wax écurie Ndakaaru sax affaire bi feeñu woon faay faay yi ndax Malick Niang génn écurie Ndakaaru ak ki nga xamante ni moom mooy Yékini Junior nga gis ne bañ génnee sax ndax ñoom ñaar ay xarit lañu woon. Mm-hmm. bañ génnee ñu bari dañoo waxoon ñoom ñaar ñooy am per seen écurie. Mm-hmm. nga gis ki mi ngi doon dóoraat euh, dóor waar. dóor waar mm-hmm. ki nekk euh, fi nga xamante ni euh, moom mooy écurie Yoff. Malick ñoom ñu génn bañ génnee Yékini continuer ànd ak ay rakkam. su ma juumul Ablaye njaay dafa ñëw joindre ko. ndax ñëpp dañoo waxoon ne Ablaye Ndiaye moom mooy remplacer ki nga xamante ne moom mooy Yékini. mooy ci doxin ba ci waxin ba ak ci li nga xamante ni moom mooy euh, kii bi comportement bi lépp parce que Yékini nekk na nga loo xamante ni dafa yaru hmm. boo gisee koo xamante ni rek ba pare dañoo nuroo hmm. mooy Ablaye Ndiaye doomu Robert ñu gis ni Ablaye Ndiaye ba mu defee sorti ak Gris ba tey hmm. gisatuñ ko introuvable nga gis ni kee nu mu tudd Yékini bëree na bàyyi bëri kenn gisatu équipe Ndakaaru Yékini ba xam dañ ñëw gunge rakkam ay rakkam gisuñu ba léegi amaguñ ci duñu leer kon donc bu ñëwee fekk fa ay xale ku ci mel ni wax nga ko sànq muy anti bu Ndakaaru te bu mu ci làmb yàgg mhm, mhm. Euh, kii di ak Koña 2 mhm, ñoom ñu nekk ay xale tamit joindre leen kon donc ak Boy Jobaas ndax moom def na benn sorte boo xamante ni macha allah euh, kon donc ak Sibel Sibel tamit Sibel ñooñu léegi tey Ndakaaru perkati Diop day gis te léegi li muy ñëw pareetu Père Sourou Fall dañuy gis ne moo leen di toppatoo ay combat ba pare moom mooy ñëw encadré kon donc écurie Ndakaaru problème mooy euh, perkati Diop li ma la waxoon sànq rek war nañoo dem waxtaan ak moom am na lu bari mën nañ cee yaatal mais man daal li ma gis écurie Ndakaaru boo woon ak bii différence bi yàgg na. Hmm. te gisuñu ba léegi koo xamante ni war a remplacer Yékini hmm. da ngay gis kat mbër buy dem daa ku ñuy waajal ndax boo gisee Fass. Hmm. xam mooy jël Fass ci exemple. mooy dafa nekk loo xamante ni gis day organiser wu. écurie Fass jour ka fa nekk da ngay gis beneen booy dañuy waajal ñëw na boo gisee rek xam ne kii. moom mooy kii mais est-ce que est-ce que est-ce que du du écurie Ndakaaru waajal nañ mais saa yu ñu waajalee seen yaakaar dafay tas parce que ku mel ni Malick Niang ñu jàppoon nañ bu Yaxya Jóob Yékini retraité ci làmb Malick Niang dina teg tànkam fi mu ko tegoon ku mel ni Yékini Junior Ablaye Ndiaye mi nga wax ñoom ñoo ñëpp ay yaakaar lañu woon ci écurie Ndakaaru mais ku ci nekk après dafa mujjee ay coow du ñàkk ci écrit mais ku ci nekk daa mujjee beddeeku ber sa wàllu bopp bersa daara ku ci nekk nekk fa Ablaye Ndiaye moom it nekkoon na xale boo xamante ne amoon nañ ci moom yaakaar jàpp mu bëre combat moom ak euh, Gris ñàkk ko ba tey xamatuñu ci ban écrit la bokk xamatuñu gisatuñ ko ci làmb gisatuñ ko ci dara est-ce que du yaakaar boobu moo moom la écrit Ndakaaru ñàkk mu tas ba tax peerkat yi commencé mel ni ku découragé yu mel noonu. foofu yaakaar amu fa xam nga dama la yaakaar amu fa. Hmm. mooy ki nga xamante dafa nekk ci biir écurie eh, di défendre écurie boobu noonu. Hmm. nekk fa ba tey mën nañoo wax ne kooku mën nañ koo waajal mais gis boo gisee ñee ñoom ñoo gën a ñoom ñoo njëkk a génn Yékini. Hmm. ku ci mel Malick Niang ak kii ki aw gauche kii aw droite Yékini junior. nga gis ni Ablaye Ndiaye waxuñu dafa génn ci écurie boobu noonu. moom ak Mamady écurie bi ñi ngay gis ay boy yu ndaw ñoo xamante ni ba ñu duggee ci làmb yàggul. Hmm. ku ci mel ni Konia 2. Hmm. yàggul te mi ngi def ay li nga xamante ni ay preuve macha allah. Hmm. tonnerre dafa nekkoon ci benn dynamique. nekk ci foo xamante ni liñ naan tolof tolof la ñuy wax. Euh, gis nañu sorti yi def da ko ñàkk. anti combat am ak Papa amoon na lu mu waroon a war a mën a Fallou Ndiaye moo tëggoon combat boobu. mu ne ba benn instant papa Yade yàlla na ko yàlla yërëm te xari ko aljana. Mm. mu delloowaat avance bi ne carrément combat boobu noonu ay supporters am ko bëggul. Mm. kon donc année blanche bi mu def anti day joué. Mm. ak Sibène moom it ñu koy félicité boo gisee booy kese kese kese. ñoom seen performance booy yi kese la. Mm-hmm. mais gisoo ci benn mag boo xamante ni danga naan kat Ndakaaru kii mooy défendre kii am mm-hmm. ay booy ndaw kese ñoo xamante ni ay dix huit la ñuy am vingt quatre ans. Mm-hmm. kon yi bëgg nañ leen te li euh, ñuy wax nag dëkk boo xamante ni dëkkub lebu la. dëkkub penc la ndax Yékini lépp lu mu forgé war naa am suivi. suivi mooy Yékini daf fay def lu kenn deful. nekk koo xamante ni il est irremplaçable la ñuy wax. donc bu ñu waxee loolu nag waxuñu comme ci cadre bëre am na ñu bari lu bëri macha allah mais c'est-à-dire li mu fi def. Hmm. ñu wax ko wala ñu bañ koo wax def na fi loo xamante ne mënoo fay kon donc man Yékini am na lu waroon def écurie Ndakaar ba xamante ni tey même bu demee sax après dina am keneen koo xamante ne dañu ko ko xoolee. Hmm. mais nag xamuñu nag lan moo tax mais xam naa ni incha allah per sewlu dina ñëw bu seetaanee lii dina joxe réponse hmm. que Yékini Yaxya moom dafa dafa dafa bàyyi làmb. dafa dafa tekki ngembam waaye bàyyiwut làmb. parce que euh, structure bi mu bi mu créé muy Fatou production mu ngi ciy tëgg ay làmb simple bëre dóor bi sax mu ngi ci doon waaj loo xamante ni xëy na feebar bi moo tax lu war lu baree baree bari bari moom moo ko tënk parce que boo gisee keroog làmb ji mu tëgg mbuur ba Franc jëloon ko ci kaw aada booy bawal yax job yi ki ni mu ngi mu ngi jàppale xale yi mais moom dafa mel ni seetaan naa benn interview bu mu def moom ak suñu papa Bécaye ñu koy ñaanal yàlla suñu borom guddal fanam loolu te mu ànd ak wér euh, mu wax ni moom mënul gérer écrit wala école de lutte mm-hmm. parce que temps moo ko ko mayul ah, loolu danga koy nangul nga xam ni day ñaaw ku mel ni yax yu job yi ki ak li mu def ci làmb yëpp mm-hmm. mu mu yor école de lutte école de lutte bi di di juga ko daanu ñu naan moom moo amul jotu écrit beeg yu mel noonu mais nit ki lépp loo gis rek waxtaan la écurie bi nga xamante ne nag fa la nekkoon muy écurie Ndakaaru ñoom ñi fa nekk ñoom xale yi ñoo war a booloowaat seen bopp te écurie bi seen loxo ñoo xam ne Yaxya Jóob Yékini mbër la woon rek doon takk ngemb ñëw na bëre carrière jeex na mu génn bàyyi na ñoom xale yi fa nekk ñu am fulay gu toll ni te écurie ba seen loxo wane lu lu raw li Yaxya Jóob ni wane woon ci làmb parce que mën na am na ay xale yoo xam ne ay yaakaaru làmb lañ te boo leen gisee bu macha allah bu ñëwee ci làmb dafay neex kon ñooñu tey fi mu toll nii war nañoo mën a toll foo xamante ni ku ci nekk war naa mën a tegaat sa tànk foofu est que du du teg sa tànk bi d'accord mun naa nekk mais est-ce que du xale yi fi mu toll nii dañoo jàpp ni absence yu Yékini bu amul ci écurie ba rek écurie ba du dem. Euh, loolu noonu man am na benn booy bu ko doon laaj boo xamante ni écurie Dakar la nekk su ma jiwoon mooy booy Jobaas. Mmh. mais moom dana da ngay dégg ne Yékini nekk na écurie Ndakaaru mhm. mais est-ce que tey bu mu fay jógee am na boo yoo xamante ne ñu ngi fa. Mhm. loolu tamit euh, lu am solo la parce que Yékini ñi ko fa fekk mooy anciens yi ñoo ko fekk mais am na ñoo xamante ni ñu bees lañ. Mhm. pour ñu gis ko. problème la moo tax dañuy dégg ni Yékini mi ngi écurie Ndakaaru mais pour ñu gis ko pour Yékini ñëw écurie ba ndax ñoom nee nañu carrément ñoom mosuñoo gis Yékini ñëw na lu hmm. euh, fa Yékini def am na lu na lu fa Yékini Junior def. Hmm. kon donc yi ñoom ñoo a relever le défi. Hmm. relever le défi mooy que ni Yékini def na fi lii diw ak diw def na fi lii man écurie Ndakaaru fa laa nekk man nag damay def le tout ba fa def a fay. man dinaa def loolu moo fa nekkoon mais loolu donc moo fa nekk mais wax dëgg yàlla moom je désolé xorom sa fa nekkoon nekkatu fa naan nag booy yi mu ngi dox ba tey am na ay xale yoo xamante ne ñu ngi fa mais jàppale bi ñu war a jàppale xale yi dafa mel ni dafa des. Yaxya Jóob Yékini dañ koy lancer appel moom it mu ñëw jàppale doomam yi nga xamante ne ñu ngi ci écurie ba ndax moom it bi muy jóg ci làmb dañ koo jàppale woon. ba mu am li mu am léegi nañoo jàppale xale yi moo xam mu mu teg ci loxo parce que xale yi tamit xeebuñu dara gis nga jàppale nit du yëkkati xaalis jox ko wala nga yëkkati yenn am idée bu rafet rek ñëw partager ko xale yi rek yaa ngi leen di jàppale en chaque fois xëy na du mën di fa jaar tout le temps tout le temps tout le temps mais war na di mën di déggante xale yi wala mu fay ñëw di leen jàppale bu amee ñaari kàddoom sànni leen ko dem yoonam xale yi dinañ ci kontaan trop trop. même bu dul sax Yékini. Ablaye mm. Ndiaye Mamady Ndiaye. Mm. ñooñu dañoo nekk ñoo xamante ne ay référence lañ. Mm-hmm. ñoom ñoo nekkoon ci ginnaaw ñoom teg leen ci yoon. Mm. kon ñii bi ñu am ñoom ñoo am ko. parce gis nga làmb dafa dem benn instant benn instant boo xamante xale yi daa lu ñu manqué parce que am na ñoo te ni ay màgg bëri lañ. Mm-hmm. am ñoo xamante ni duñu bëgg làmb ndax boo gisee booy yi dañuy bëgg mais du ñu am ku leen tekkee hmm. te làmb dafa war a am éducation hmm. ndax éducation mooy tey dina am après fu mu la yóbbu muy lan si sa waxin si sa jëfin si sa comportement hmm. te loolu yëpp écurie Ndakaaru dañ doon joué loolu ndax boo gisee Yékini bu waxee ñëpp ne macha allah comportement ñëpp ne macha allah maa ngi ñaan noonu Yékini Junior noonu Mamadi Ndiaye noonu euh, kii nga xam te ne moom mooy euh, Ablaye Ndiaye tamit noonu ñooñu seen comportement macha allah mais tey bu fekkee écurie boo xam te ne affaire waxuma nag booy amuñu éducation. Mm, mm. mais dañuy waxtaan. léegi après loolu commencé réer ci écrit bi. Mm. après dina amaat beneen image bu mu wane te image boobu noonu ñoom bi ñu fa fekk moom la ñu war a euh, kii séddale. mais pas ñu indi seen beneen kii. ndax du écrit Dakar ko si yëpp éducation moom mu amul rek day raté. te boo gisee mbër yi am na ñu bari ñoo xamante ni seen comportement je suis désolé. da ngay gis mbër boo xamante ni sax parfois nit da koy jéppi loolu du ci moom de éducation mooy écrit. daam na muy doxee. ci côté lépp mais tey xale yi boo leen bàyyee rek dañuy dem ak affaire fougue de jeunesse. Hmm. dañuy gis xale boo xamante ni day nekk ci ci palmarès bu baax huit combats huit victoire. Hmm. mais tey yaakaar ni tey bu asamaan si doon taxaw mi ci kaw. Hmm. léegi mu am leen lu perte su commencé tegle ay defet defet nga xam ne lii du ci moom de mais jëfin bi muy bi muy doxalee. loolu moo ko xañ lii nii. moo tax hmm. ma ne éducation dafa bokk ci li nga xamante ni moom mooy ci làmb moo tax daal képp koo xamante ni yaa ngi woon écurie Ndakaaru ancien yi nga xamante ni soit am nañ ci seeni doom yu bëri ndax perkat hmm. yi amoon na ci doom buy bëri. Hmm. comme xam nga ñun ñëpp ñu ñëwaat. jaaxle moo tuddoon naan est-ce que tuddoon xaw ma yaakaar naa jin wër la amoon na doom yu bëri. Ah, jin wër la tuddoon ñëw jàppale écurie Ndakaaru parce que tamit. écurie la boo xam te ne warul mën a fay. Hmm. warul mën a fay daal man daal ji li wax dëgg yàlla message boobu laa am may lancé hmm. leen di jaajëfal bu baax a baax a baax dégg ngeen message boobu la soxna Fatima doon lancé rek pour képp koo xamante ni dangaa nekk écurie Ndakaaru nga ñëw jàpp ko def ko bopp. jàppale xale yi nga xamante ni ñu ngi ndax xale yi ñu wax ko ak ñu ñàkk ko wax soxla nañ ku leen jàppale te mbërum làmb fi mu toll nii am na étape booy toll faw ñu jàppale faw ñu tette la parce que xale yi ay xale lañ rek dañuy entraîner mais xamuñu fi ñu war a teg seen tànk xamuñu dëgg-dëgg mbër pour nga doon champion nan nga koy mën a liggéeyee ba am ko mais ku mel ni Père Kati boo ko amee ak Sour Fall tudd suñu papa nga nga am leen ci écrit ñu seeni conseil rek war na laa mën a yóbbu fu kawe kawe kawe ci làmb ñu leen di jaajëfal bu baax a baax soxna Fatima li ñu amoon ci waxtu jot na lan nga war a mën a tàggatoo. waaw kon ni koy waxee rek nee leen wax dëgg yàlla ñun ay xale lañ. Hmm. leen ñëpp ñaanal parce que tamit li may waxat li moo waxoon rek laay wax ay xale lañ naam ñi ngi gëstu. Hmm. kon ñaata ñoom ñoo ñuy seetaan. ñu jàpp ne erreur bu ñu def rek. Hmm. wax dëgg yàlla ay xale bi duñoo bëgg def loo xamante ni rien que pour vous faire plaisir. te xam hmm. naa ne yéen loolu xam ngeen ko bu baax a baax. Hmm. muy jiile muy man muy Ousin ndax nee naa leen chaque jour nit ku dul juum amul. ñu ngi def ay erreur mais tout le temps yéen ñuy di ñu wax daal commencé gu ñu dañuy fo rek leen apprécier ngeen cliqué soo cliqué nag bu dee neex na leen rek ñu continuer parce que nee naa leen jiile muy jiile muy Ousin muy Fatima à chaque fois de leen indil loo xamante ni. ah di ngeen di ngeen ko bëgg comme que saison bi tëj na. waaw dañuy doxantu rek luñ bëgg rek. def ñu def bilan bilan. ñu fo rek ñu fo ñu fo yëkkati nag Dakar nag wax dëgg yàlla mu nekk xam te ne ñun ko yàgg hmm. di ko seetaan. Hmm. kon tey bu ñu yàlla mayoo opportunité ñu dem hmm. yàlla la rek. wax dëgg yëpp nañ ñu xaar bu positif wala négatif ku ko fi def fii dañ koy jukkee. ñu xool nag après nag mooy loolu te gëm naa la le meilleur reste à venir encore une fois kontaan bu baax a baax. le fait que lu ma partagé yow plateau. parce que yow moom am na mbégte. da ngaa baax nag maa bëgg nag. <laughs> di ko bëggee aadama l'infatigable. <laughs> maa ngi lay bëggee cottan gërëm na la ndax yow fu la rek nga ni acca. ndeysaan mais nag kàbb ah, maa koy mm. bëggee bu baax a baax bu la ñaari jabar yi. Mm. Bassirou le coordinateur la wax. mu nekk koo hmm. xamante ne suñu lépp la di ko ñaanal ah, yal na jàmm yàgg seytaane bañ a dox ci diggante bi. Hmm. naan leen daal ñaanalee ñu dara ah. mais dafa am koo xamante ne suma xarit la. Hmm. muy Amdi Moustapha. maa ngi koy bégee bu baax a baax Amdi Moustapha borom teraanga naa la xam nga ma xam. après dañuy yaatal quoi Abdou Moustapha mooy <laughs> man de xaw ma man kay xaw ma Abdou Moustapha. Abdou ah, man kay xaw ma. man de xaw ma am di bu safa bal boobu xam naa ne fi mu toll nii damaa waaru sax parce que jërëjëf mbokk yi dégg ngeen Fatima macha allah ma kàddu gi rafet na lool euh, moom it àbb na sama marto bi ndax bërki démb Ousin laa ko abal tey moom moo ko àbb euh, àbb marto rek dóor kon ñu leen di jëfal bu baax a baax a baax mbokki di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqaliko loolu lañ leen indiloon ci seen njàngat làmb bàyyi jiili soxna Fatima jaa ngeen jëf ba ëllëg incha allah. ci beneen xew-xewu làmb jaa ngeen jëf.